juróom xaaj bi ci juróom xaaj yi noonu yéesu dem ca jàngu ba ca nasaret dëkk ba mu màgge mu taxaw fa jàng ci téere yonent yàlla esayi ne xelum borom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xebaar bu baax bi dafa ma yónni ngir ma yëgal jaam yi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot tey yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi ba mu noppee mu ne mbooloo mi tey jii mbind mi mat na waaye nit ñi gëmuñu woon ne yeesu mooy almasi bi yàlla dige woon noonu ñu génne ko dëkk ba yéesu tànn na fukki góor ak ñaar ngir ñu àndak moom diirub ñetti at yi mu jàngale fii ci àddina ñooñu lañu daan wooye ndaw yi yéesu dafa leen a jàngal ngir ñoom ñu mën a jàngal ñeneen ba ñooñu doon ay taalibe yéesu fukki ndaw yi ak ñaar ñu ngi tudd simon mi yeesu tuddee pierre andare saak yowaana philippe barthélemy Macca Tooma Saak Simon Yuda ak Yuda Iskariyo mi mujj wor yéesu jàngal na nit ñi te def na ay kéemaan yu bare ca biir réew ma dafa daan jàngale ak sañsañ bu sëriñ sa amul woon fii la nettali bi yem léegi ma laaj leen fukk ak benn lan la yeesu wax jukkee ko ci mbind mu sell mi ci jàngu ba xelum boroom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xabaar bu baax bi dafa ma yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot tey yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi ba mu noppee mu ne mbooloo mi tey jii mbind mi mat na ñaar lu tax yeesu tànn fukki fukki ndaw yi ak ñaar ngir ñu ànd ak moom diirub ñetti at yi mu jàngale jàngal na leen ngir ñoom it ñu mën a jàngal ñeneen ñi def leen ay taalibe yéesu